ci waxtaan bi nga xamante ne doon nañ ko def muy waxtaan bi nga xamante ne dañ koy def ci wàllu jaamu yàlla ngir fàttali jaamu yàlla yi te nag ñuy bëgg waxtaane li nga xamante ne lu am solo la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane woon ko ñi nga xamante ñoom ñooy jullit yi ngir ñu sax si mu nekk loo xamante ne lu am solo la ci jullit bi njëriñ la ci jullit bi waaye ñenn ci jullit ñi dañ koy sàgganee ndax damay wax ne képp koo xamante ne nekkal nga say njaboot ci biir kër gi yàlla dogal nga tukki dem voyage yi at foo mënti dem bu yàlla defee jàmm ba nga dellu si waat di nga am loo indi muy li nga xamante ne moo di sérica te gis nga boo ko indaalee rek xale yëpp dañuy daal di kontaan si sérica boobu noonu le daal di koy jël buñ ko jëfandikoo daal di lay ñaanal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo indil sérica ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo gëm yàlla ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa sérité boobu mu ñu indil moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi moom moo nekk li nga xamante ne moom moo di julli te mu nekk nag loo xamante ne sérité la waaye kon sérité boobu lañ ko war a daal di jëfandikoo ndax bi yonent bi demee yàlla woolu ko ci asamaanu juróom-ñaar bi mu waxeeg yàlla ba war a dellu siwaat ci suuf ci la ko yàlla jox boobule kana mu nekk boobu le sérité mu daal di ñu koy indil ñun jullit ñi kon nag ñun dañ cee waroon a nekk di ko def ni nga xamante ne noonu la ko yàlla bëggee waaye nag ñuy ñëw nag ci li nga xamante ne moom mooy julli ñu wax ne nag julli dafa nekk loo xamante ne dafay jariñ ki nga xamante ne da koy def te yàlla sant ko yonent bi yonent bi daal di koy indi ngir ñun ñu koy def te bokk na ci ëllëg yowmal xiyaam li yàlla di njëkka laaj balaa jàmbee dox mooy julli awalu maa yuxaasabu alayhi al abdu yowma alxiyaam asalaatu ida salaxat salaxa al ahmaalu kulluhu waaye wa ida fatadat fatadat ahmaalu kulluhu mu wax ne li nga xamante ne moo di jaam ëllëg yowmal xiyaam buñ fa demee jaam bi du dëgg benn paa wala du dox dara lu mooy dañ koy laaj li nga xamante ne moom moo di julli bu julli gi baaxee sa jëf yi nga doon def yépp dafay daal di baax waaye bu fekkee ne dangaa nekkoon ci la ne neex ñàkk jaamu yàlla julli woo bu ëllëgee bu ñu xoolee julli gi bu julli gi baaxul sa jëf yi nga defoon yépp dafay daal di yàq kon mbokk yi loolu mën na taxaw mën na defaat jàngat li nga xamante ne bu ñu dekkee ëllëg yowmal xiyaam balaa ñoo def dara moom lañu lay laaj bu baaxee lépp baax kon loolu kat war nañ koy daal di nekk di ko def chaque instant bu waxtu bi jotee ñu daal di koy def beneen bi si topp tamit julli dafa nekk loo xamante ne dafay jëriñ yow mi nga xamante ngaa nekk di def naka sudu dul yaa ngi nekk ci caaxaan yi yaa ngi nekk ci bépp xeetu caaxaan yaa ngi koy def te bëgg nga daal di ci génn del sax ci li nga xamante ne moom moo di julli boo ci saxee sellal julli gi sellal ni ngay jaamoo yàlla law bépp loo doon def ci lu bon yàlla dala koy daal dindil ndax julli gi moom mooy tax da koy daal di raxas asalaatu tanha anil faxsaa'i wal munkar inna salaata tanha anil faxsaa'i wal munkar kon julli dafay dindi li nga xamante ne moom mooy ay ay ay ñaawteef yu nekkoon ci yow lépp loo xamante ne rek da doon gàllankoor nekk ci sa yaram bi ay jëmm ji bakkan gi mii noon loolu ci xeetu mooy yàlla yi booy julli te sellal julli gi yàlla subhaanahu wa taala julli googu ni nga koy sellalee dina tax lépp lu ñaaw lu nekkoon sa biir xol da koy daal di raxas beneen bi itam yàlla ci boppam dafa bëgg li nga xamante ne mooy jaam bi nga xamante ne mi ngi julli ci ëram yàlla dafa bokk ci yi mu gën a bëgg ci jëfi jaamu yàlla jaam jaamu jaamu yàlla yi yàlla li mu gën a bëgg ci loolu ci jëf yi nga xamante ne nit ki da koy defal yàlla bokk na ci lim ci gën a bëgg mooy di julli ci waxtoom kon mbokk yi julli ci waxtu am na solo ndax yàlla daf ko bëgg beneen bi itam wax naa ko ci tàmbali bi yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy waaj a faatu bokk na si lu mu dénkoon julli ñi moo di ñuy sax si li nga xamante ne moom moo di julli kon tabaarakallaahu julli dafa nekk loo xamante ne lu am solo la waaye ñenn ñi ci jaamu yàlla yi ñenn ñi ci doomu aadama yi dañ koy sàggane dañ koy néewal lool na ñoo xam ne dañuy dégg waxtu bi xam ne na jot na waaye dañuy toog jàpp ca dañ nekk rek bu ma demee kër ga dinaa ko fay kon loolu nekk na loo xamante ne ñàkk fonk waxtu bi la te yàlla bokk na ci li mu gën a bëgg mooy ngay julli ci li nga xamante ne moo di heure te ñi nga xamante ne ñoo di way dugg safara yi bi ñu leen laajee loo leen di xullee ba dugg safara dañoo wax ne law kun naa nasmaw aw naqilu maa kun naa fi asxaabi sa'ir bu fekkoon ne de ñun de bi ñu nekkee ci àdduna liñ ñu doon wax ñu ngi ko doon dégg liñ ñu doon wax ñu ngi ko doon bàyyi xel kat du ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy waa safara kon tabaarakallaahu doomu aadama war nay xam lu baax di ko déglu te bu ko dégloo ba pare mu daal di koy topp ndax bu ko toppee njariñam rek lay daal di doon mbokk yi te beneen bi itam te moo gën a am solo ci li nga xamante ne moo di wàllu julli képp koo xamante ne bëgg ngaa jege sa boroom jege koo xamante ne jege gu wér lay doon jege gu sell lay doon del jaamu yàlla su ko defee jaamu yàlla googu dina tax yàgg sa boroom di ngeen nekk ñoo xamante ngeen di jigéeyantoo kon bokkaat na itam ci lu ñu wax ne julli itam lépp loo xamante ne danga koy def ci ay ñaawteef boo di julli te julli gi tegu ci yoon julli gi dina mën a farale loolu ndax nee naa la sànq ci njëlbeenu wax ba kat ëllëg yowmal xiyaam lu ñuy njëkk laaj moom mooy li nga xamante ne moo di julli te bu baaxee rek yàlla day sukkandiku ci baax googu noonu la yeneen ni sax du ko xool waaye bu bonee tamit yàlla day sukkandiku ci bon googu mu bon moom julli tax ñu daal lay buuxaale yóbbu la kon tabaarakallaahu loolu lañ leen indiloon mu nekk loo xamante ne moo di asalaatu yi nga xamante ne mooy nekk ci njariñ yi nga xamante ne moo nekk ci njariñu julli te ki nga xamante ne mi ngi julli itam te julli gi tegu ci yoon nekk loo xamante ne lu sell la ëllëg yowmal xiyaam julli googu dina taxaw daa di koy féete loo xamante ne da koy rambu yowmal xiyaam julli gi dina tax waa jooju noonu dina mucc ci dem feneen lu mooy dugg aljana rek lay def kon mbokk yi julli am na solo luñ ci mën a def suñu kéemtalaay kàttan nañ ci sax luñ ci mën nañ ko def ndax sax jaamu yàlla sax teyal waru koo xam ni nga teyal teyal teyal teyal waaye bu waxtu bi jotee jugal nga jàpp julli waaye bëri na ñoon ñoo xamante ne dañ naan dañoo teyal ci jaamu yàlla waaye nag loolu dara lu warulu ko lu mooy dañoo ñàkk tàggat cër yi ci jaamu yàlla mooy waral bu ñu di julli sax yow da ngay am lottu ndax say cër miinu ko kon mbokk yi ñu bàyyi xel bu baax li nga xamante ne moo di jaamu yàlla ndax am na solo exemple bi leen ci jox rek mooy ki nga xamante dafa miin julli euh, fu ko waxtu bi fekk rek day daal dem julli misaal bi mooy comme ki nga xamante dafay entraînement rek ak ki nga xamante ne du entrainement ki nga xamante dafay entraînement bu nekkee ci salle day nekk en forme ndax dafay miin weñ yi dafay miin yëpp waaye ku fa ñëw nekk gan yaakaar naa ne danga ngay am problème mu yëkkati dara ndax sa yaram bi du ko miin kon nag julli tamit noonu la mel képp koo xamante ne yaa ngi koy def ni ko yàlla bëggee tabaarakallaaw da ngay nekk ci noflaay waaye koo xamante ne munu ko du ko def tabaarakallaaw bu ko bëggee forcé itam dafay daal di sonn ndax julli dafa nekk loo xamante ne yombul mbokk yi kon tabaarakallaaw loolu rek lañ leen indiloon ci li nga xamante ne mooy seen bu mag bii di SSP TV tabaarakallaaw di nuyu suñu grand bi fi nekk tabaarakallaaw sëriñ Pape ko ñaanal jàmm ju sax di ñaan yàlla yàlla na yokk place bi ci barke tabaarakallaaw loolu rek la ñu indiloon ci li nga xamante ne moo di julli mbokk julli ñi tabaarakallaahu xam naa ne waaxiru daawaana an alhamdulilahi rabi alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu